dégg na fan yi sax kuy soow ni yi xew ci réew meek nit ñi di wax lu tax mu Sy waxul ma ne waaw réew mi mu Sy rekk a fi nekk loolu kenn mësu ko gis mais fekk na man dafa am ko xamni momay orienté muy sayyid Cheikh Ahmed Tidiane gis nga li mu waxone ni bu ñëpp de wax bobu nopi jotna te Sénégal ñëpp ngi wax kon nag xam sa bopp ak sumtu xukmun mais bu ñaareel bi mu war a tax nit ñi gën teey mooy mag ñi dañu war a xàmmee ñaari xutba yi xutbatu alladina anamta alayhim ak xutbatu almaxdubi alayhim aw addalin ñi dañuy natt ba foofu am na ñoo xam ne bu ñu waxee yàlla seen kàddu ci alladina an'amta alayhim ña la koy natt ndax du ñu wax mukk lu leen wóorul mais am ñu nga xam ne nag même bu leen yonent juróon wala wali yu jur leen bu ñu waxee seen kàddu ci al maghdub alayhim aw awi dallin ci lañ koy nat ngeen bal ma nak bu may wax aya fekk ci bir phrase arab la bokul ak bu may wax aya fekk ci bir al-quran la ñaar yi bokul waaw bu ko defee xàmmee ñaari discours yooyu dafay am solo ndax sens de responsabilité mooy tax te sunu boroom fi muy nattee ak fi nit ñi di déggee dafa nekkul benn moo tax mag ñi seen yitte yépp mooy baat yi yàlla ni muy utiliser baat yi bu téyee mu ne alqawl bu téyee mu wax alkalaam mooy sunu boroom quelle est la différence entre alqawl wal kalaam alqawl bu ko yàlla dee wax rek gis nga li mu waxoon xamal ni lu dundul la si rek a fi nekk innama qawluna li cheyin ida aradna an naqula lahu kun fa